bismillahi arrahmaani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mooy guddig ñaareel ci koor naafila gi tey juróom benn rakka la kon mi ñetti sëlmbal rakka bu ne fatiha benn yoon inna a'taynaakal kawsara fukki yoon ma baama ko juróom benn rakka la rakka bu ne fatiha benn yoon inna aataynaaka al kawsara fukki yoon